ma tënk ay kàddu yu néew jagleel ko suñu réew mi di senegal ak li ñuy dund ci biiram réew mi nag suñu borom. li ñuy bari bari bokkuñu aw melo bokkuñu ay jikko bokkuñu ay soxla te terewul suñu borom wàcce fi am koom ci géej gi ak ci jéeri ji waaye li ëpp ci ñuy jariñoo koomu réew mi du doon waa réew mi te bari nañu fi dund ab coono fii ci senegal bu mbir yi jaaroon yoon coono ba wàññi ko li ko teree jaar yoon nag mooy lenn lu ne ña ko ña ko jiite ñoo koy jariñoo moo tax bari na ku yàlla xañ la mu yoroon ndax daf koo séddaleloo mu far féetewoo ko kon li ñépp bokk daa mat a xàmmee ak lu kenn moom xale yi nekk ci réew mi nag bari nañu ci am jom lool te nangoo liggéey waaye am réew bu fekkee denc moo leen gënal li ku lot te dajalekatub alal foo ko fekk yërmandeem dafay wàññiku waaye ndaw lu xeebul métier mat naa jàppale te ñu jiite réew mi ci wàllu politique nañu fexe ba lii xew ci réew mi wàññiku te mooy ñi nangoo liggéey yoruñu lu ñu liggéeye ba noppi kenn mayu leen jàmm lu ci waay dajale sàmba yi nangu ko te du mujj fenn te boo jéemee aar sa bopp sa bakkan xaj na ca te mbooleem ñi fiy fooyee alal ju ñu liggéeyul ñoo fi ëpp coow dàq fee tooñ te dara du leen ca fekk moo tax mii réew ku fi doon jàmbaar te wóoluwoo yàlla boo moytuwul ñu soppi la yaafus ngir doxinu réew mi am réew li koy tax a jëm kanam bokk na ci jàngal ndaw ñi te yar leen bala leen warteefu àdduna war ñu toll ci war a liggéey ñu taxawu leen jàppale leen ñu am lu ñu jàpp ñu aaral leen seeni alal te ñuy àtte ci wàll yoon ñuy bañ a gaawtu ndax kuy jeex dëgg te xamagoo fu mu féete waruloo gaawtu te fekk ku tooñ mu leer naññ nga jox ko dëgg ak ku am dëgg nga xañ ko ko lu ci ne responsabilité la ëllëg yowmal xiyaamati te fii ci àdduna doomu aadama mën na fee fal moroomam waaye pal ga du wéy ndax bari na ku jël retraite fàttaliku fitna ju mu mas a teg nit ngir ab garaatam bu boobaa mën na koo rëcc te fekk wees na ku yàlla fal rek moo dul folliku ñi nga xam ne itam seenum njàng weesuwul ku leen fay xaalis boo nekkul ci dëgg ñu lijjanti la ak dëgg boo nekkee ci ak dëgg te amuloo xaalis mën nañ la koo xañ képp ku métier loolu te tënkuwoo ci luwaay réew mi àq ju rëy mën naa dox sa diggante ak sa moroomum jàmm moo tax jullit dafa war di taxaw ci ak dëgg te jëfam yépp ak lu muy seede mu jiital ci ak maandute ni ko borom bi subhaanahu wa waxe ne yaa ayuha alladina amanu kunu xawaamina bil qist suhadaa lillah walaw ala anfusikum aw ilwalidaini wal aqrabin in yakun xaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabiu lhawa an tahdilu wa in talu aw turidu fa inna allaha kaana bima tahmaluuna xabira réew mi di Sénégal nag ñi fi cosaanoo ñépp a ko bokk muy góor ñi di jigéen ñi di mag ñi di ndaw ñi kon mu waroon a doon li kenn lu kenn ku nekk di xam ay wareefam door a mën a laaj ab cëram te sart yi tënk am réew war a ànd ak ay loi te ay nit di ko xalaat di ko bind bépp réew nag bu moom boppam waratu sukkandiku ci xalaati ña ko nootoon la war nag mooy am réew bu ñuy tënk ay sartam ak i luwaam war koo méngale ak cosaanul waa réew ma te fii ci senegal sart yi tënk réew mi ak luwaa yi bari nañu ko umpule te ña wax ne jàng nañu ko fu ñu toll ci werante la ñuy dëkk ku ci wax sa morom weddi ko moo tax léeg-léeg population bi xaw a jaaxle ndax am réew bu fekkee am na ñu ca jàng droit te léeg-léeg ñuy werante ak professeurs yi leen ko jàngaloon kon ana lan moo xew am réew bu fekkee ñu jàng wàllu wér-gi-yaram ay machine ñoo leen di xamal jàngoro ñu door koo xam te am malaat bu yoree benn jàngoro jaar ci ñaari médecin te seeni ordonnance di woroo ana lan moo xew boo demee ci wàllum njàng mi nga gis ku yor diplôme yu kawe te am niwoom suufe lool kon ana lan moo xew bu fekkee marché bu ñuy joxe la duñu seet entreprise ba ko yelloo waaye kañu miin la ñu koy jox kon ana lan moo waral loolu moo tax réew mi li fi gën a jafe mooy nit ku xolam mucc ci ay feebar yi faral a gaar nit ci xolom muy loo xam ne gàllankoor na lu bari ci société bi te lépp soqi ko ci ñàkk gëm yàlla ak nangub dogalam ndax lépp lu suñu borom namm ci ab jaamam ku saxol amul jàngoro doo ci jéem dara moo tax ku bëgg sa teraanga di yokk ña la yéeneb safaan foo leen fekk teral leen te xam ne fa ñu toll duñu ko gaaw a weesu fileeg fajuwuñu ba wér ci jàngoroy xol ji leen dal ba ñuy weddi jëfi suñu borom suñu réew mi nag ku fi yeewu ba noppi tayal ab yaafus ngay doon te ab lijjanti moo lay gënal ab liggéey lu lëj te sakkan moo lay gënal lu leer te néew ñooñu nag foo leen fekk dañuy gaaw a yéem mbiri jàmbur bu yàggee ñu xemmeem ko kañaan daal cay topp moo tax ku yàlla musal ci xol bu lëndëm bul jaxasoo ak boroom xel mu nëx ndax loo bëgg a jëf ci lu baax moo lay wàññil sab yool te jamono jiinu nu toll mbokk mu la bokkoo te yéene la jàmm yombatul wala réew yi matal kóllëre yombatul te ëpp ci nit ñi lépp lu ñu la xamal ci lu baax nëbb ko te bu ñu la xamalul ab safaan sosal la ko moo tax ak bokk ak kóllëre yéenante jàmm moo koy suuxat te koo yéene jàmm mu yéene la safaan raw nga ko te dootu la dab réew mi di senegal nag jàngoro yi fi nekk ci wàllu jikko yi dafay bari te ñi ci mucc bariwul te mooy ñi am alal te doyluwuñu ak ñi néewle te nanguwuñoo muñ ak ñi bëgg am lu ne te nanguwuñoo liggéey ak ñi xamul lu bari te duñu umpule dara ak ñiy nax nit ñi ci seeni jëmm ngir di wane aw melo ca kaw wu bokkul ak la ca biir ak ñiy wër kër gi te fu ñu dugg nettali fa lu ñu fekkewul woon bokk na ci nag li mën a tas am réew ndaw lu jàng ba sori lool te liggéeyul ak ndaw lu am métier te amul matériel ak ndaw lu am jom lool te dooleem néew ñett ñii seeni deret dafay bax te képp ku koy tuur dootoo am jàmm réew mi nag ku fi am responsabilité la la mooy jaar ci yoonu njub te xam ne mboolem ña jubadi yow la ñuy defum noonu waaye bu boobaa wettili ko yàlla moo gën sori ko moo tax nit ku mu mën a doon ak loo mën a am ak ku la mën a jur te nekkoo ci ak njub ay feq ñoo lay wettali képp kuy niru li niru lu nag waa ju baax te la ngay jëf ca biir sellul baye boo xam ne danga mas a weeru moo tax ab jullit li ko war mooy taqoo aku dëggu ci lépp lu mu mën a doon ci wax ak ci jëf ndax dëggu dafa nekk jikko ju tedd te dafa bokk ci li mottali ab jullit tey mott mottali diineem wallazi jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaika humul muttaquun yaa ayuha allazina amanu taqullaha wa kunu maa saadiqin bu loolu jàllee réew mi ku ñu fi tudde kilifa diine ku nekk lépp luy gàllankoor diine ji war na laa ñor moo tax war nañuy gëstu waaye yi ñuy taxawal ci réew mi di ca joxe seeni xalaat lépp lu ca nara na saxal suñu diine ñu teel ko caa génne ndax gouvernement bu fi mën a ne ci réew mi xam na bu baax tolluwaayu kilifa diine yi waaye dafa mel ne lu bari ci kilifa diine yi dañoo umpale liy xew ci réew mi ba la ñu yelloo doon ci réew mi ñu siif ko ba noppi di leen ca sedd moo tax réew mi léeg-léeg kilifa diine di fi sàkku loo xam ne moo ko waroon a yor di ko séddale waaye lu mën a xew ak lu jamono soppiku soppiku la diine ji daa bañ warula soppiku kon ñi bëgg a soppi diine ji ñi bañ mu soppiku nañu wax ak ñoom ci biirub néeg bu ñu leen dégluwul nañu génn ci pénc mi wax ak ñi leen di déglu te ñu xam ne nag ku fi mbooloo topp ak di la jox seeni alal dañu laa nangul te cosaanul topp ga te cosaanul topp ga ñu la topp diine ko waral kon ku ne waruloo défendre sab tariixa te doo défendre diine lislaam te ngeen bàyyi xel ci ne tubaab yes tubaab yi seeni maam bokkaloon jamono bu seeni pexe joyoon réew mi kenn du fi julli di ko fësal waaye na ngeen xam ne ñi ngeen bokkal réew bi ni ngeen fi wuutoo seeni maam noonu lañu fi wuutoo tubaab ya doon sonal seeni maam ndax tubaab yi ñoo leen jàngal yar leen xeetloo leen seen histoire réew la doonoon cosaanu réew mi ñu fàtteloo leen ko la cay firnde bu ñu la jàngalee ba gëmloo la seen bopp ba noppi am na barab yoo xam ne ñeme woo faa dugg te solo yërey tubaab mbaa boo fa duggee jàpp ne dañu lay xeet te boo fa duggee ñeme woo wax saw làkk donte ña fa nekk ñépp dégg nañu wolof balaa ñu koy wax faaw ñu ubbee ay français ndax ñu mën a wan tubaab yi ne leen seen kilifteef ci nun jeexagul réew mi réew mi nag ab gouvernement moo ko jiite waaye li gën a bari ci population bi kilifa diine yi lañuy déglu moo tax ab gouvernement bu jiitee am réew faaw mu waral liggéey ngir dundal waa réew ma te bu naree jubbanti ña dëng dafa war di jubal waaye ab gouvernement warul di jéem a not waa réewam ba tax muy xiifloo ab peuplem senegal nag lii fi xew fileeg soppikuwul du jur jàmm ndax am réew bu baree nit ñi yow te bokk lu ñu bëgg te seeni am am sore lool ba noppi groupe yu ndaw di leen jiite ci réew mi di fëkk seenu xel di séddoo seeni alal te nit nag boo ko ëppee ay pexe te sutoo ko am xel boo ko rawee ay nax da koo jiitu te bu jamono yàggee mën na laa dab politiciens yi ci réew mi nag nañu seetaat seen bopp nit ñi kenn mënu leen a jiite ba noppi féetewoo seeni alal ak seeni àq ba noppi ëpp leeni wax réew mi nag coow li bari na te wax bu baree jëf daldi néew ay tappale nag ak i wor ak nëbbu ak dëgg lu ci ne mën naa waral coow lu bari réew mi nag ku fi mënula wor mënuloo fecc kóllëre te doob naa feq kenn ëpp la coono sëriñ si itam dafa am fu ñu leen di xaar ndax ab sëriñ nag bu jàngul jubul ab naxekat lay doon fii ci Sénégal nag donn fi ak cëriñ moo gën a yomb doon fi ab sëriñ bu jëkk ab sëriñ iteem mooy daara ja ak jàkka ja ak tool ya te lu ñu am doyloo ko léegi nag ñi donn cëriñ gi la ca ëpp dañoo donn matériel ba bàyyi fa jikko ya loolu moo waral xale yu ci bari la noppaloon seeni wayjur moo leen sonal tey ndax seeni wayjur dañoo jëkke ab coono mujje ab noflaay ndaw yi nag ñu bari ci ñoom dañoo nar a jiital ab noflaay mujje ab cooñam loolu nag ndaw ndaw lu ko ci def sa mujj dana ñaaw te dana bari looy reccu ëllëg ndax dana bari ñoo tollool jamono te la la taxoon a yàkkamti sa àdduna doo leen ko ëpple te bokku leen nu ngeen koy amee ndax lépp lu nit di wut ci ak yàkkamti bu moytuwul ngorom des fa te képp ku yootu lu jotagul mën naa sabab ngay wax lu dul dëgg mbaa ngay jëf lu xaraam ak a jël loo moomul ndaw dafay sàkku xam-xam lu mu ci jële jéem koo jëfe te jiital ab yar xormal ay kilifaam ndaw nag bu ñu ko jàngalul yaruñu ko ku séq ak moom ay wax yaa tooñ sa bopp te ku màgg te jàngoo yaruwoo bu la mbedd mi yare mereel sa bopp léegi nag wutum alal tax na xàmmee dëgg ki nar jafe na te néew na fooy wute alal nga am fa lu la doy sëq te sa ndoxum bët tuuruwul ndax ñi yor alal ñi ci nangoo jëf te yàlla rekk a tax bariwuñu moo tax bari na ku yor alal di ca joxe nit ñi di ko coow te joxin wa tax ak payam néew li ko waral alal dafay gaaw ci soppi jikko ku yàlla dimbali rek mooy yor alal boole ca ràññee ndax alal yor ko sa ngëm yàlla gën di dolliku loolu yombul ñu baree ngi yor alal génn àdduna bàyyi ko fi moo leen gënal dimbali ci jaami yàlla yi ku gëmul yàlla dëgg gëmoo lay xew ëllëg mën ngaa def seytaane muy sa wéttal te mboolem loo nar a jox nit ñi naa feq yee ci ëpple walladina yunfiquuna amwaalahum ri'a annaas wala yuminuuna billahi wala bil yawmi al axir wa man yakun alseytaanu lahu qarinan fa saa qarinan wa ma saa alayhim law amanu billahi wal yawmi al axir wa anfaqu mimma rasaqahum allahu wa kaana allahu bihim aliman bu loolu jàllee ma wax tuuti lu jëm ci yoonu murit ak li aju ci dëkk bii di Touba tarixatil muridiya nag ki ko taxawal mooy xaadimu rasul kon dafay jaadu képp ku wax ne ci nga bokk nga bañ a waroog moom fu ngeen jaar ndax sëriñ bi dafa leeral jubluwaayam ak fi muy jaar te bind na ko jàngale ko jëfe na ko la ca jiitu la ca jiitu jàngale na ni ñuy toppe yàlla te bañ koo bokkaale xamle na kuy borom bi subhanahu wa ak ndawam li mu yónni ci bindeef yi nee na lillahi tawxiidi bila israaki waxaadalil jinaani saa idraaki huwa allazi lahu lwujudu walxidam mahal baxa muxaalifan li si adam mu teg ca ne muhammadun salla alayhi bi salaam rasuluhu allasi lahu xaadal kalaam diinul ilaahi rabbina al islaamu diinun li xayrihin taxaamalaamu inna alkitaaba rabbina alkitaabu wa fiihi qaala saalika alkitaabu rasuluna ahmadu xayru rusuli alal jamihi salawaatul mursali dellu na wax ne xamittu rabbi ala kawni rasul wasilati ilayhi hasa xayru rasul moo tax képp ku ne am murit nga war ngaa gëstu ba xam li sëriñ bi bind boo ko xamee te topp ko moo lay jariñ boo ko xamul nag la ngay fare ci mbedd mi la ca wér xamal ne bariwul képp ku aju ci moom nag wax naa ak yow kon la war a doon sa itte mooy dégg wax ja moo tax mu wax ne wasaytukum yaa man taallaxu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatraku muharraman wa ma kurih li wajhi rabbikum wa kulli mustabih kon murit bu ne jàng ak jëfe moo la war te ak jaamu yàlla sàkku la xam door caa sóobu wa man yarum ibadatallahi bila tafaquhin fa abadan lan yuqbala man kaana muminan wa musliman walam yahbud bi ixlaasin famadin lil alam duumu ala al imaani wal islaami wala simul ihsaana bi istislaami usikuma min baxdi nafsi bi tuxaa wal ilmi wal amali tuxsu bi irtixaa yoon wi nag dafa bari ñoo xam ne làmbutu moo leen gënal gëstu te ku leen di nax moo leen gënal ku leen di yee te li te li war ci am murit mu bañ a bari ak jot bañ a neenal ay waxtoom ci lépp luy niru dëgg te soreek moom yoon wi nag ku ci bokk tegul ci kaw yoon wi te boo bañee sànk bul wàcc yoon wi te wutum alal ak xëcc daraja bu mu la jaral foo toll di wax lu dul dëgg ndax wërsëg ak daraja lu ci ne suñu borom moo koy joxe huwa man yabsutu risqahu liman yasaau min ibadihi kulla saman bari na nag ñoo xam ne lu ñuy wut lu ne fi léegi waxuñu lu safaanoog dëgg jàpp ne duñu ko am te sëriñ bi nee na wa tarkunal kaziba yaa ixwaani afdalu min tilaawatil qur'aani fa dum ala sidqi mahan wa sikri in xifta xadan fadiha laa tatawajjahu li xayri alfaida wala simu sunnata wa hiya alqaida man abada allaha bila xaqaidi sunniyatin fama lahu min xaaidi am murit nag wërsëgam waru ko jay ba muy santaas ab sëriñam ndax alal seexluwul ab juddu seexluwul jikko ju ñaaw moo tax jamono ji danga jamono ji da nga gis ku juddoo ci askan wu ñu daa taamu démb ci jikko ju rafet alal alal tax na jikkoy askanam réer ko taalibe bu murit nag bu jàngul jàngalewul liggéeyul jaamuwul yàlla alal ju bari warul a tax mu weesoo jubbanti bari na nag ñuy tuddoo yoon wi am koom tax na seeni wayjur seeni seeni jëwriñ bàyyi leen ci li leen neex ba ñu faf doon ab natt ci yoon wi ñooñe nag lu ci waay jëf ngir gàkkal yoon wi wala ngay fëkk xelub murit yi ngir jariñoo leen balaa ngay génn àdduna da nga xam ne sëriñ bi nanguwul kuy foyee pas-pasub jàmbur yoonu morit nag ku xam li ci borom daj doo ko wute alal mbaa ngay jéem a nax nit ñi te sëriñ bi kuy jàngaleeti mbiram na nga jéem a leeral ay mbindam te melowa sëriñ bi làmba woon foo koy xamle na am jeex it ci say jikko ndax koy jàngal melow sëriñ Tuuba ngir bëgg mu roy ko yow mi koy jàngale yaa ci war a jiitu ñu baree ngi waxtaane yoon wi ak a naatal xarbaaxi sëriñ bi te nañu koy waxe mën naa yokk ay noon te ñu bàyyi xel ci ne képp ku ormaal sa kilifa war ngaa ormaal kilifa ak jàmbur ñu baree ngi dunde yoon wi di sosal sëriñ Touba lu mu waxul loolu moo tax mboolem jàngkat yi nekkul ci yoon wi ci mbind sëriñ bi ca la ñuy xàmmee ñiy wax ay njaaxum lu leen tax di wax te bari na ñuy xëy te xamuñu fu ñu jëm te bàyyi njaboot ca seeni kër kon ñàkk waxu njaaxum du leen xañ luñ yóbbu seeni kër te sëriñ tuubaa day ku koy tuddoo war ngaa xam ne daawul tooñ ci wax ak ci jëf te daawul fayu ak tooñ te ku mu bokkal diine ji wekk na la kon na xel yi delsi jamono bii nu toll kenn ku ne war ngaa jéem a tuub la nga weesu tey fexe sellal li la dese te nga umpule ko lool te umpule bis ba ak waxtu wa te bu agsee suñu boroom jël sa roo ñu suul saw yaram ñu war a càmbar loo fi nekke woon ëllëg yowmal xiyaamati moo tax fii jamono toll ku ne li la war mooy defaraat say jikko ndax àdduna dafa yàggul te li ci doomu aadama di dund gën koo néew ndaw yi nga xam ne ci yoon wi lañuy juddoo te làq gu ñu juróom fukki at bu ñu xamoon la seeni jur daj faaw ñu ànd akuk dal te jéem a jàngi te jub te bañ a doyloo seenub juddu bu loolu jàllee balaa may jeexal dëkk bii di tuubaa dëkk bi di Touba nag ak li aju ci moom ak li ko wër ak li war ci biiram lu mat di waxtaane la te bokk na ci li yombal liggéey bi lenn lu nañ ña ca féete nañu koy càmbar te cay sellal seenu doxin te bépp liggéey bu fi gouvernement bi di liggéeyati na koy teg ci loxo yu wóor te lu mu fi tàmbaleeti la ca gën mu àggale ko door a sémb leneen kon ñi leen di defal bilan ci travaux yi nañu leen wax goudron yi ñu fi tàmbale woon daaw nañu leen wax ñu àggale ko bâtiment bi ñu doon tabax ci la hôpital Matlaboul Fawzayni nañu leen wax ñu àggale ko hôpital ba ñuy liggéey ci yoonu Daarul Muxti nañu leen wax ñu àggale ko te bu ñu ko yàkkamti ngir ay élection ba di ko ubbi te eggul bépp matériel nag bu mu yellool war na faa am bala ñu koo ubbi ndegem nag at mu jot ñu lim ay milliards ne def nañu ko Touba kon ku xool war ngaa gis ku làmb war ngaa daj ndax yoonu murit kat ay mbiram jéggi na ay plan ak i projet te nit bu jekkoo boppam loo koy defal war caa gaaw te lii ñuy fii def àq la bu yoonu murit am ci réew mi moo tax képp ku sëriñ tuuba jaboote wax na ak yow nee na man zanna xayrallaahi yux ni aw yadur fasaaka fi daarayni soo kaddin wadur man fawwadal amra ila nasraani doonal ilaahi baa abil xusraani wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.